nuyu nañ leen ziar leen yéen ñu ñuy suivre ci 4appuis TV di leen jaajëfal bu baax ci sitaan bi nga ñu sitaan partout dans le monde comme ni koy defee toujours rek tey ñu ngi waat fii Yoff seet si fi Balla Diouf suñu consultant suñu partenaire fas yéene waxtaan ak moom ci affiche bi ñu gis démb dox ci diggante Balla Gaye ak Gris Bordeaux mu joxe ci xalaatam comme ni koy defee toujours rek nañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyu ñu sitaan ñu dugg si waxtaan bi Balla ziar naa la waaw asalaamaaleykum 4appuis TV ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di kontaan trop à chaque fois ñu war a daje rek war a waxtaanee làmb ndeysaan ndax làmb dafa neex donc euh, gis nañ ni nag waaw làmb làmb dingot na waaw saa yu làmb dingotee nag ba sàjj rek dañuy toog waxtaan yaatal euh, partager xalaat yi. Mm-hmm. comme ni ko gars yi waxee. Mm-hmm. donc kontaan trop aussi di ñëw la di nuyu di sant euh, auditeurs auditrices su quatre appuis yëpp yi nekk ci Sénégal ñi nekk ci diaspora bi. ñi nekk partout dans le monde. Mm-hmm. di leen nuyu et di leen wax ni tamit. gën leen di jàpp di seetaan quatre appuis ndax lépp fii lay. xewee. ci abonné ci chaîne bi surtout. dañ abonné. waaw ba cliquer abone mhm. di ko suivre di ko topp ndax ñoom làmb da leen a ñor. macha te dañ koy gëstu. Mhm. di ko topp. Mhm. di leen indil. donc nag yéen a moom 4appuis kon seen 4appuis ngi noonu. bu ko ko jeexee nag am na benn rubrique bu ñu waajal bu tudd jaay doole. waaw jaay doole mi ngi ñëw mi ngi ñëw. parce que à chaque fois ñu ngi koy ñu ngi koy sañaxal di ko di ko dugal. jaay doole mi ngi ñëw donc euh, na ko auditeurs yëpp xaar. ndax liggéey bu yaatoo ci nekk euh, te dinañ gën a mën a wane làmb wane jeune talent yi wane écurie yi wane quartier yi wane làmb fan lay dundee ci Sénégal. parce que bal mbër yi nga xam leneen lu nekk am na leneen lu ñu wan lu ñu mën a wan a mane seen seen si si seen bopp lu dul bëri. waaw parce que euh, làmb làmb làmb làmb dafa fës. Mm. Euh, te mbër mbëri dañ leen di xamee ci bëri kese léegi nag bu ñu demee nag di wan leneen loo xam ne mbër yi dañ koy dund te du bëre loolu defe naa ne amateurs yi war nañ ko xaar ah, ah yéen waa 4 yi xaar leen ko de mi ngi ñëw waaw après koor gi incha allah mooy jaay doole jaay doole la demee bala comme ni mu ko waxee léegi rek si début bi euh, démb Gaston fisale waat ne Balla Gaye Bombardier Balla Gaye euh, Gris Bordeaux deuxième acte bi mhm. mais ba la ñëw ci deuxième acte bi dañuy dama bëgg ñu wax dama bëgg ñu waxtaan ci association des lutteurs en activité mhm. Balla Diouf est-ce que association boobu noonu bu bu yàggee dina ba gàllankoor làmb. waaw asalaamaaleykum encore une fois katap yi ñu ngi leen di nuyu. waa di wax ni euh, encore une fois félicitations Gaston Mbengue euh, mi taxawal euh, encore une fois un grand combat boo xam ne combat revanche la sénégalais yi tamit namboon nañ ko parce que seen premier combat ni mu demee woon defe naa ni amateurs yi doyaluñ ci woon donc bu ko indiwaatee rek sàjjiwaat ko dañu gën a neex waaw ba tax na daal euh, combat bu am solo la di ci félicité waat Gaston Mbengue waaw di wax ni association des lutteurs en activité euh, bu yàggee ndax mun na yàq làmb maanaam ci ban côté. ci ban côté parce que boo xoolee bu fekkee tey dañ ne Balla Gaye Gris Bordeaux mhm. seen combat taxaw na mais ay adversaire lañ. Mhm. ñun ñaar bu ñu demee ba war a bu ñu demee ba war a toog ci autour d'une même mhm. di waxtaan lu lu mën naa ne cinq fois ci mois bi wala lu bëri. est ce que loolu bu demee bu demee ba yàgg du développé du développé benn genre affinité seen seen biir ba nga xamante ne seen combat wala seen face to face intensité bi mu waroon am da dina wàññeeku bu baax waaw c'est que dafa toll foo xam ne si jamono yu ñu toll euh, je pense que association des lutteurs en activité yàgg na fi defe naa ni Manga moo ko jiite woon bañ fi jógee ci Manga après euh, tubaabu joor jiite ko euh, bañ jógee bañ jógee ci Manga ba tafaagee jiite ko Tafa Gueye ba mu ko jiitee ba mu fi jógee Kayre jiite ko ba ko Kayre jiitee Xaadim Gadiaga te ñoo ñëpp ñu ngi woon en activité di bëri te mosul indi benn problème ci làmb et je pense que te mbëri yi jamono ji ñu toll euh, am ils sont que ni association pour régler ay problème la mais làmb seen liggéey la seen métier la donc bu làmb jotee dañuy jël association jël affinité teg fële parce que seen liggéey la moo leen di may du dëgg ah man de aw ma xel ñaar que ni. association de lutte activité mun na dem ba yàq làmb parce que tey mbër yi nekk ci association bi xam nañ ni ñoom ñëpp ay adversaire lañ man au contraire man damay gisee sax feneen parce que tey dina tax mbër yi yenn animosité yi doon am seen biir entre ñoom ak seen supporters yi mu deñ parce que tey bu ñu naan tey non violence ci làmb defe naa ne ci yu mel nii la war a commencé mbër yi di toog. di waxtaan di di di xool ñoom naka la ñuy naka la ñu bëggee seen làmb et je pense que loolu lu am solo la mbëri nag wax coow coowlee fi bëri nii rek association mhm. bu làmb tëjee mhm. wala ñoo am lu ñu war a kaas mhm. àndandoo kaas ko loolu la rek mais bu làmb tëjee bu làmb ubbee ku ci ku ci am combat at sa morom naa la wax dara da ngeen di mel ni xamantewu leen parce que ay kurpañ moom amul kurpañu copain amul kurpañu association kurpañ kurpañ la je pense que mbëri tey pour ñu avancer dinañu war loo xam ne amateurs yi wax dëgg yàlla duñ ci duñ ci duñ ci duñ ci duñ ci am benn benn benn benn gàllankoor am na solo parce que li tax wax loolu mooy boo xoolee Balla Balla ak ak Gris boo comparé seen face bu njëkk ba comparé seen face bi nga xam ne am na différence nañu dem déglu ko bu njëkk ba après ñëwaat dégluwaat face to face bu mujj bi ñu xool différence bi. mooy ah, que loolu mooy benn ñaareel bi mooy xamu mbër su ngandee làmmiñ da caabi gémmiñ gi te gi dafa bari wax ma jël combat bi mu noppi. mooy ñaareel bi. bokk na ci mbër yi gën a indiscipliné dama jël combat bi. tu pèses wax. Uh-huh. bokk na ci mbër yi gën a bëri wax. signature contrat bu mu am day lata la day tararari mel ni mété dama jël combat bi pour noppiloo ko mu noppi. ñetteel bi ñetteel bi mooy fu mu tourné. fu mu la. yaakaar nañ ni Sénégal gi yëpp quatre-vingt-dix pour cent des sénégalais. non dama lay laaj. donc boo yoree mën na déglu. mën nañu wax tam papa tudd ay ndey ak ay baay dama ne la xam nga yaa laaj ma la moo tax ma la amoo yar. non su ma ko xam parce que ma te olof te olof te olof soxla ma sa kàddu yow soxla ma sa kàddu dafa am benn affaire bu mu wax. yow xamoo lu olof wax wax ko tubaab nee na. est li ngay wax ni yow. tubaab yaa sa xel noonu tubaab nee na la discipline des coach les secs. ma ne la discipline succès. ma ne la mën nañu wax sans tudd ay ndey ay baay ay dugg na fi. exactement xam nga da nga ne fii ñu nekk yëpp am nañ ndey ak baay. waaw mais da ngay hmm. ba ngay wax man dama la déglu attentivement xam nga ñëpp am nañ ndey ak baa laa la wax nga ne man dama réew <coughs> déjà yow wax nga ma loo xam waroo ma ko maa ngi yow bu ñu dajoon ci mbedd dem doo ma ne da nga doo ma ko wax parce que sekkuma ko yow xam nga ne boo ma ko waxee ñu jëflante barki Serigne Bamba laa la wax boo ma ko waxee ñu jëflante. war na yàlla maa la sama diggante ak yàlla maa la mën barki Serigne Saliou Mbacke waxoo dëgg. waa baax na parce que boo xoolee feesu feesu njëkk yi wax ji dëgëroon na trop parce que ñaari mbër yi xamante woon ñamanteeguñu woon ba tax na ku nekk. doon euh, wàññi sa morom ci ci ci psychologie. ba tax na waxan waxoon nañ fa wax waxante nañ fa ay wax yu dëgër a dëgër eh, mais je pense que ba ñu laalantee ba pare. ba jóge ci loolu. defe naa ne seen combat bi tey euh, seen face to dinañ wax yeneen leneen wax lu dul ay voilà maa la mën ak barki sëñ Saliou maa la mën kii naan ko da nga réew kii naan ko leneen ak leneen ak leneen. je pense que boobu laalanteeguñu woon. ba ñu laalantee ba tàqali ko defe naa ni deuxième combat bi tey ku ci nekk nooy naxee sa morom daan ko koy wut ka nga ka nga ka nga koy menacer verbalement. waaw am na solo kon ñu ngi dugg ci combat bi nag combat bu njëkk ba ci arbitre décision arbitre la jeexee combat bi bëri woon na xeex trop. bëri bi tuuti la ci lu tax bëri bi ñoom ñu fa ñu favoriser woon xeex bi bàyyi bëri bi si jour combat bi. waaw lu tax boo gisee boo boo li nga wax léegi nii laay ñëwaat rek. Mm-hmm. boo gisee ñoom ñaar seen face to face nu mu demee. waaw ku xool seen face to face nu mu demee ñoom ñaar mhm. combat bi mhm. waru la bett mu demee noonu parce que li ñu waxante ci mhm. face to face bi rëy na rëy boo xam ne ku nekk bëggoon nga ko wane ba tax na tey aspect rayante aspect ku nekk wan ni sa morom maa la gën a doon góor loolu la ñu indi woon ci combat bi mais combat bi nag ñoom ñaar ku nekk da nga cee soxla ndam parce que tey Balla dafa jël trois combats euh, trois combats la signé. Mm-hmm. wax dëgg yàlla mm-hmm. euh, bëgg ci am ndam ci ñetti mm-hmm. combats yëpp. tey ko xool Gris wax dëgg yàlla ça fait euh, depuis 2010 bañ ko internisé ba léegi ça fait onze ans. vraiment ba léegi indagul. indile indilagul face. satisfaction bi bi tax ñuy wax. du dëgg te combat bi mun na mun na tax tey euh, titre roi deuxième tigre de Fass buñ ko jox mu mën ko mérité parce que boo xoolee ñu def la tête de file écurie pendant onze ans. Mhm. te vraiment euh, écurie bi di tardé à décoller di nekk ci ay jafe-jafe. di nekk ci ay difficultés je pense que un bon tête de dafa war a bañ loolu. je pense que combat bi am na message yu bëree bëree bëri yu ci làqatu. Mhm. ci côté ñaari mbër yëpp parce que tey. Euh, Balla Gaye ku wax dëgg xam na ni tey mhm. am na ay combat combat yu métti métti métti métti tey combat am ak Bombardier du du combat caaxaan combat am ak. Euh, euh, Boy Niang du combat caaxaan. waxuma laa nag combat Gris Bordeaux. Balla Gaye nag moo ni toll parce que moom risque rek la bëgg. donc comme risque rek la bëgg. donc jox nañ ko combat ñetti combat de risque. et je pense que combat yu am am am solo la. et je pense que saison yii ñu jëm saison bi ñu nekk muy waaj a jeex at ñu jëm defe naa ni amateurs yi moom dinañ ci kontaan bu baax a baax a baax a baax. Gris Bordeaux ba mu bëreeloon ba mu bëreeloon ci premier combat bi ak Balla Gaye bi ban moo ci gën a dangereux. parce que combat bu njëkk ba nee nañ Balla Gaye pare wu doon à 100 pour cent physiquement. combat bi kon parce que ku xool combat bu njëkk ba. Euh, ba ñu demee ci premier premier premier premier euh, minute yi premier mi bi ni ma ko mën a waxee daanaka ñaari mbër yi daanaka wane nañ fa njàmbaar wane nañ fa fulla wane nañ fa fayda wane nañ bëgg. détermination wane nañ ko fa. mais bañ demee ci deuxième deuxième deuxième mi bi. ah deuxième mi-temps ba ñu noppalu joo ba ñëw. Mhm. Gris Bordeaux moo ëppoon avantage ci combat parce que Balla euh, euh, accéléré na premier premier round bi Balla da ko accéléré. Mhm. ci biir accélération bi il pare que amoon na ci benn douleur. ci au niveau ci ndigam. ba taxoon na mu téye boppam donc euh, Gris nag boobu il était frais ah ci côté xeex ci côté bëre il était beaucoup plus frais ci deuxième ci deuxième deuxième deuxième mi bi dafa naa ne Gris moo amoon avantage mais exploité wu ko exploité wu ko ba Balla génn ci Balla nag durant boobu ba léegi ñëpp Sénégal ñëpp gis nañ ni Balla mi ngi liggéey mi ngi ci condition yu baax ñu ngi koy encadré te am na plan de carrière te am na lu mu bëgg donc mënul bokk Balla bi bëre woon ak Gris at Balla bi mënul bokk parce que bala bi mooy gën a pare parce que déjà day jóge ci ay combat nekk ci compétition après ñëw war a jàkkaarloo Gris Bordeaux kon combat yi mënul bokk. combat yi mënul bokk Gris Bordeaux yaa wax nga ko léegi si si début bi instant bi ay défi yu mag défi yu bëri ñu ngi koy xaar ci combat bi mhm. te Gris yaakaar naa na gëj na daan de ci Tyson waaw giri ci combat ak Tyson la gëj daane gëj naa am ndam ci Tyson waaw defe naa. ci Tyson waaw su ma juumul. kon combat bi. Mhm. Fass ñu ngi koy xaar. ay supporters ñu ngi ko ciy xaar Fass dañoo namm victoire Fass dañoo namm yëngatu. Fass dañoo namm parce que Fass li ñu namm dafa bari. Mhm. et je pense que ba ñu falee ba giri nekkee deuxième tigre de ba léegi. ni ko premier tigre de Fass daal defee. ci indi ay satisfaction deuxième tigre de Fass ñëw ful ko tey moom da ko waroon tripler. tey nag ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla may ko jàmm euh, ba nga xam ni tey dina mën a àgg ci combat boobu ba pare indil face ay satisfaction. satisfaction macha allah am na solo. mais aussi bu ñu xoolee Gris Bordeaux mbër ñaare mbër daan ko ba ba jël bu leer ba toog ci kawam wala mu bu jaaxaan jafe na ci jafe nañ ci moom la la ma waral loolu. waaw parce que Gris mbër la. Gris Gris mbër la. mbër kaamin la. dafa mën dafa mën a bëre. mën a xeex mais Gris je pense que li koy manqué rek mooy ci yenn combat yi bu demee ba ci biir géew bi jël ay responsabilité jël ay responsabilité Gris dafa di jël responsabilité ci biir géew toll na foofu du dëgg dem ba ci tey ku dem ba daan bombardier daan Tyson am nga expérience ci làmb kenn dootu la jàngal dara ci bëre tey Fass ëmb na la tànkusaan bu nekk indi la donc yow war nga toll foo xam ne war nga xam làmb léegi na jël laayefam avenir am en mai xam ni moom champion la ci mbëri la bokk ba pare dem day bëgg dara mooy bëgg di rêver quoi di rêver nekk roi des arènes wala rêver tée làmb yooyu da ko desee parce que Gris bon pour moom àgg na ci kaw rek champion la et puis tout quoi mais voilà voilà Gris na na dafa war a xiif dafa war a am ay ambition ci làmb surtout période bii ñu toll ci la war a profiter parce que làmb période bii ñu toll bu ci profiter rek am am ci détermination ni ko Modou Lo ku ko xool xam ne dafa yàgg bëgg roi des arènes di ko rêver di ko ñafe ba am ko Ama Baldé tey ku ko xool ba muy bëri ba léegi roi des arènes lay rêvé te mi ngi koy ñafe mi ngi ci yoon bi tey Gris rêve yooyu la war a nourrir ambition yooyu la war a nourrir téye làmb ci loxoom loolu rek moo ci des et puis jër ay responsabilité ñëw ci géew xam ni kat champion la li muy xeex amul benn mbër bu koy xeex mu dëggal boppam jël ay responsabilité ci jeexal combat que voilà souvent consigne de trop daal waaw baax na mhm. conseil baax na trop parce que day dimbali mbër mhm. mais dafay am xeetu mbër yoo xam ne mhm. conseil dinañ ko topp mhm. mais am na foo xam ne mhm. ci biir bëree wala ci mhm. biir action conseil àggu fa responsabilité moo fa nekk nga xam ne bëre bi lii la laaj nga appliqué nga def ko démb seen face to face am na lu ko balekee wax nee na ko bii paa dina la daan ba toog sa ko loolu gisandi ko ci combat bi jënd bu leer waaw combat bi moom jël bu leer dina ci am xaw ma kuy daan nag mais jël bu leer dina ci am waaw parce que ñaari mbër yi seen ñaari ñaari xeetu mbër yi seen i combat ne kiiwul di daal du ñaari mbër yoo xam ne match nul mun nga ko ci compter a à vingt pour cent parce que Balla Gaye ko ko xam day bëre Gris ku ko xam day xeex day bëre donc euh, mun nañu wax ni combat bi jël la dina ci am. jël la dina ci hmm. mais du yàgg par rapport ak bu njëkk ba de xanaa. non du du du yàgg comme par ak bu njëkk ba. mun naa hmm. wax ni combat bi bu duree cinq minutes sax. Hmm. ëpp na. tey jii Gris Bordeaux wax nga ko léegi boo ma la koy reproché ci biir ci biir combat euh, à part à part jël ay jël ay lan lay doon. Gris combat doo doo ko ci reproché dara man aw ma dara lu ma koy reproché ci biir combat. Mhm. ndax komba bu waree xeex dina xeex. Mhm. bu waree bëre dina bëre. Mhm. il faut juste intelligence. intelligence muy muy boole ci làmbam beaucoup d'intelligence. beaucoup d'intelligence beaucoup d'intelligence. beaucoup beaucoup d'intelligence ci biir biir ci biir géew. Fass est-ce que tey gis nga fu ko xamante ni te bu Gris Bordeaux demoon ba ba ba ba ba jël retraite am. am na ko mën a ñëw jël place am. Fass toujours day am day am ñu fa nekk. relève day am relève toujours day am relève. parce que Fass moo bindoo noonu Fass dëkku làmb la Fass du ñàkk relève mu Fass kañ li ñuy jooy mooy est-ce que relève yi ñuy am ñu ngi leen di préparer est-ce que ñu ngi waajal ay relève est-ce ñu ngi leen di comme niñ daan waajalee bu njëkk que ni kat diw a ngi fi waaye diw tamit nañ ko nañ ko nañ ko sàmm nañ ko nañ ko topp nañ ko dëgëral nañ ko taxaw est que ñu ngi ñu ngi waajal relève parce que relève dañ koy waajal est que ñu ngi koy waajal mais relève moom at mbër du mës a ñàkk Fass du ma sa ñàkk faas. Mm-hmm. mais ñu ñu ñu ci ko Balla Gaye tuuti ma gis ne moom euh, balay gën a mën a bëri dëgg dafay day jàpp ngeem est-ce que loolu bu Gris Bordeaux indee comme ngeem boobu indiwul si premier combat bi du ko du ko du nekk handicap ci moom. waaw Balla Gaye mën na bëree nu ne mën na bëree jàpp ngemb mën na bëree nga jàpp ngembam Gris mën na bëree jàpp ngemb ñoom ñaar ñëpp dañuy bëre ngemb mm-hmm. du dëgg mm-hmm. tey ba tax na euh, mbër am na mbër yu défensif. ñoom ngay jàppanteel ngemb combat bi di të. mais tey Gris bu jàppee ngemb day liggéey. Balla Gaye bu jàppee ngemb day liggéey. kon foofu combat bu të mënu fa am. parce que ñoom ñaar ni ñu bindoo rek bu ñu jàppante ku nekk bu jàppee sa ngemb. naa la wax dara de ñu bëre ba senegal yëpp kontaan. wala ñu kenn ki kenn kenn ki rokkos kenn ki. ba mu rocceeku génnaat ñu taxaw jàpp. mais dama gis combat bu njëkk ba Gris mayu ko mu jàpp ngemb bi. waaw Gris mayu ko parce que xam na loolu mooy fooru Balla Ah. tey bu bu xamee ne loolu mooy fooru Balla def erreur ba Balla jàpp ngembam mu am ci safaan hmm. moom la ñuy yedd hmm. donc am na combat am na looy maye am na loo xam ne tamit doo ko maye ci biir combat hmm. kon Balla Gaye côté boobu war war nañ ci liggéeyaat la mën na liggéey ci loolu mën na liggéey ci lépp parce que mbër bu polyvalent la donc euh, du jàpp ngemb rek la mën a daanee mën na bëree ci nu ne waaw donc euh, làmb ji daal mun naa la wax lu ma la mën ci wax mooy làmb ju neex la waaw Gris ban stratégie nga koy nga koy nga jox ci combat bi foofu lañ jeexalee bu ma ko doon jox stratégie. Mhm. mu tegaat combat ak Balla bu njëkk ba. xool ko début à la fin xool li mu ci war a rectifier at ni mu ci war a bëree at moom jël combat bi décision boppam mooy mu rey boppam ci entraînement jël jëlal combat bi boppam bu ko bu ko kenn gën a bëgg combat bi na ko gën a bëgg ñëpp. am na solo. Mhm. Balla tàggul. waaw di tàggu Sénégalais yi rek at mbokku amateurs yi. ah mbokk vraiment ñi nga xam ne tey ñëpp ñu ngi ñuy seetaan ci 4appuis bi nga xam ne tey ah mun naa wax ni eh, séentu leen ko de mi ngi ñëw de waaw 4appuis mi ngi ñëw at ay innovation yu baree baree baree baree bare bare lépp ci làmb rek ngir bëggal amateur am tey ñu ngi gërëm sénégalais yëpp yi nekk ci biir réew mi at ci bitim réew comme ni ma ko waxatee ah ngeen kale ko nag ci 4appuis. am na solo jaayef gars yi dinañ jaajëfal bu baax ñëpp ñu seetaan 4appuis diaspora Sénégal fépp la fu Sénégal di surkat app kat app ñu lay jaajëfal bu baax Balla Diouf la woon ci jàngat bi dégg ngeen ko li mu wax yëpp message bi am na solo trop vraiment di leen jox rendez-vous boobu beneen yoon incha allah ak beneen événement rek toujours ñu ñëwaat seet suñu consultant Balla Diouf ma joxe ci xalaatam jaa ngeen jëf